وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه يتجاوز عن الخطايا والسيئات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بإيدين فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى راه أبو داود وصححه الباني قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والإيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره فترى هذه الأمة المرحومة مع إشراقة يوم العيد تتعبد الله عز وجل بالفطر كما تتعبدته من قبل بالصيام قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله بالأمس القريب استقبلنا حبيبنا رمضان واليوم نودئه ولا تنس أن رب رمضان هو رب الشهور واستمر على الطاعة واسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين حتى تلقاه واعلم أن نهاية وقت الطاعة كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk jullit yi ñu ngi màggal sunu borom ñu ngi màggal sunu borom bu màgg bi ñu ngi màggal sunu borom bi nga xam ne lu màgg moo ko màggal ñu ngi sant sunu borom mi nga xam ne ci ay xéewalam la lépp lu baax di mate yàlla tiimaloon nañu ak ramadan am na ñu bari ñoo xam ne dogaluñu ñu dogalul ñu fekke ko am na ñu ko fekke woon ci biir weer bi lañ ko wuy ji yàlla wërsëgal nañu ñu fekk ramadan yàlla wërsëgal nañu ñu woor ramadan yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ramadan yàlla moom nga xam ne ci ngëneelam ak i mbaaxam ca lay baale jaami seeni bakkaar yàlla nañu baal lépp lu ñu jiitaloon yàlla nañu yërëm ba ñu bañ a dellu ca loole ñu ngi koy ñaan mu julli ci sunu soppe ba sunu sang ba jaamam bu tedd ba yonentam bu mujjoon ci ay yonentam gën a tedd ci ay yonentam muy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moomu cant yépp ñeel na ko moo jubal yowmul islaam yoonam ba daa di koy xiirtal ca lam ko xiirtal daa di koy jagleel loo xam ne mës koo jox benn xeet ca la ko fa jiitu woon ca li fi jaar ci ay xeet yàlla rek moo ko xam wa in min ummatin illa qala fiha nazir amul benn xeet lu dul yàlla masa ci yónni yonent ñun yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu loo xam ni nee na ci yéen laa matale lii di diine lislaam gërëm naa ngeen jaamooma nii mottali naa sama xéewal yépp ci yéen gërëm lislaam mu nekk seen diine mbokk julit taaru lislaam boobu ku ne xam ne ne xeet yi fi jaaroon yépp amoon nañu ay iit amoon nañu ay feet feet yooyu na doon ca yàlla la jóge wala mu doon seen bànneexu bakkan la jóge ala kulli xaal ñun diine lislaam anas ibnu malik radiallahu anhu nee na yonent bi ñëwoon na madina fekk ñu am ñaari feet yuñ daan feetu mu ne bàyyi leen ko yàlla wuutalal na leen yeneen ñaari feet yu ko gën ñu déglu bu baax waxul yàlla dolli na leen ñaari feet yàlla wuutal na leen ñaari feet yu ko gën loolu mbokk lu ñuy jàngal mooy yow boo xisee ba ne jullit nga ñaari feet nga am ci sa dund benn bi mooy feetu tabaski beneen bi mooy feetu korite feet boo xam ne bu nekk daa tëj jaamu yàlla gu mag nekk ponk ci ponk lislaam tabaski moom ñëw tëj aj màkka lii di idul fitri moom moo tëj weer wu tedd wi nga xam ne ci la ñu génn loolu mbokk sunu yonente salallahu alayhi wa sallam daana wax ni lu leen yonent bi indil jël leen lum leen tere bàyyi leen looloo tax ñun sunu iid bii nañu xam ne jaamu yàlla la du fo du folklore dañ koo war a xoole ne ko yàlla subhanahu wa taala tërale looloo tax la ñuy jëkk a def ci bis bi mooy daje ak sunu borom daal di julli ñaari rakka daal di ñaaxante ba sunu xol yépp dellu ci moom ñu tëje ko ñaan yàlla tëje ko balante ak lii mooy la nga xam ne mooy feetul islaam mbokk it mi ngi nii idul islaam bokk na ci màndarga yàlla yi te képp ko màggal màndarga yàlla yàlla màggal ko waaye julit nii ànd ak it boobu li muy ñëw ci ñoom yépp da ngay gis ne ñi ngi jaamu yàlla fu ñu mën a toll démb ñi ngi doon jaamu yàlla ci biir ramadan waaye it bi it ñi ngi jaamoo yàlla ci biir it bi ca loolu mbokk mooy màndarga julit mooy julit léppam jaamu yàlla la léppam jaamu yàlla la buy sëy ma ngay jaamu yàlla buy lekk ma ngay jaamu yàlla buy dox ma ngay jaamu yàlla léppam julit jaamu yàlla la sunu borom yàlla boobu nga xam ne nee na man day bëgguma lenn lu leen jafeel lépp lu mu leen indi lu leen yombal la moo tax koor a ngi nii yombal naa bis yi lool def ko bis yi néew ngir ngeen matal ko waaye ngir it ngeen màggal seen borom ci lim leen jubal waaye it ngir ngeen sant ma loolu mbokk mi wane ne ndekete it lan lay firi mooy màggal yàlla yàlla kenn mënu koo màggal ci wiitaloo ko ngal waay mbokk julit xamal ne bisu tey bi mooy bisu fàttaliku màgg yàlla fàttaliku toroxlu ci kanamu yàlla ñu xam ne amuñu benn buur bu ñu war a yaakaar adduna amuñu kenn ku ñu war a yaakaar alaxira ku ñu mën a ñob di njëriñ wala dàqar ñu lor ku dul kenn ki muy allah jalla wa ala lii mbokk moom la iddi firi looloo tax ñu bari di def ak takbir takbir màggal yàlla boobu muy wone ne yàlla rek moo gën a màgg bal yàlla rek mooy ki màgg loolu ngay répété say julli moom la noddokat bi di répété ay yow moo ko jullit démbul yàggul dara ñi ngi naan ah weeru koor day léegi mu ñëw mbokk weeru koor ñëw na ba tey ñi ngi nii di tagg weeru koor di ko defal suñu mujj àq ànd ak moom loolu lu ñuy wanal ne ndekete bis yi naka yàlla waxe woon bis yu néew la waaye ay yow mbokk julit xamal na yooyu tamit bis yu néew nga ni weeru ko nekk bis yu néew noonu nga nekk bis yu néew soo demee yowmal qiyaama suñ la laajee da ngay xam boo fàttali ko xam ne ndekete bis yu néew nga defoon ci kaw àdduna looloo tax ba weeru koor dem na waaye xamal ne borom weeru koor moom mi ngi fi xamal ne weeru koor dem na waaye ki moom desiti weer yi mi ngi fi nga la waaye continuel jaamu yàlla gi nga nekk woon ci weeru koor ñaanal yàlla mu saxal la ci diina ju tedd ju sell ji ba baa ngay dajeeg sa borom jàll wa ala xamal yow mbokk julit ne la nga xamee ne mooy sa korité korité dëgg-dëgg korité mooy bis boo xam ne nii sukuraat nga ba daje ak sa borom loolu moo war a nekk sa bisu korité moom la yonent bi moom la sunu borom wax ñu ne na nga jaamu sa borom bam lay dikkal li nga xam ne mooy lu wóor ca lu wóor loolu mooy dee da ngaa war a ñaan teg sa tànk ala siratul mustaqim ba baa ngay dajeeg sa borom loolu moo tax ba mbokk jullit yi tedd yi koor googu passé na ci weeru koor waaye koor jógu fi de weer wi ñu nekk yonent bi alayhi salaam nee na ku góorgóor la ba woor ci juróom benni fan yàlla dana la jàpp ne yow de da ngaa mel ne ku dëkk woon a koor mbokk weer wu la nga woor ca ñetti fan loolu ci koor la bokk bisu alxames bisu altine loolu ci koor la bokk na ngeen góorgóorlu qiyaamu layli bi ngeen doon def weeru koor taxul woon yàlla saxal ko de yàlla ba mu koy indi naan kaanu qalilan min al-layli ma yahjahuun loolu koor ak lu dul koor la woon amul lenn luñ gën a yaakaar lu ñu mën a jokkale sunu borom lu mel ne la nga xam ne mooy qiyaamu layli fala sunu borom di woo ay jaamam ana ko may ñaan ma may ko kuy xettilu ko ma xettilu ko góorgóorlu leen ci sunna yi nga xam ne moo topp ci julli loolee nga xamee ni nii mooy rakk yi ñuy def gannaaw tisbaar ak après tisbaar waaye góorgóorlu leen ca la nga xam ne mooy alquran bi nga xam ne doon ngeen ko jàng ci weeru koor wi continué leen saxal ko di ko jàng mbokk loolu mooy wane ne la ngeen doon def ci weeru koor gi yépp continué leen ko waaye nag mbokk koor xam leen ne benn ponk la ci ponk lislaam waaye lislaam ponk ba ca gën a màgg mooy julli ay waay maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk ngeen dénk ko seen njaboot yow mi nga xam ne yàlla dogaloon na weeru koor yaa ngi doon am ñëw ci jàkka ji jàkka ji fees dell nga la waay weeru koor bu mu paase nga bàyyi jàkkee borom bi jàkka bañ koy tabax koor taxul jàkka dañ koo tabax pour dund jullit ñi mboole seen góorgóorlu leen ci génn seen zakaatu alal képp ku yàlla may góorgóorlul nga dem makka nañ delluwaat tuub tuub gu sell jëm ci sunu boroom dogu gu sell jëm ci sunu boroom waaye nga la waay bi ñu fàtte sunu njaboot sunu boroom nee na qu anfusakum wa ahlikum naara nañu fàttaliku njaboot gi nañu fàttaliku soxna yi benn ci ñaax leen ci jaamu yàlla waaye rafetal seen nekkin ak ñoom ay yéen góor ñi ragal leen yàlla ci jigéen ñi waaye yéen jigéen ñi ngeen ragal yàlla ci góor ñi ñi ngi dund jamono boo xam ne jafe na lool lii nga xam ne mooy problème mu sëy ak i tas musul ñàkk ci àdduna ba yàlla su see àdduna ba tey waaye suñu jamono tey ni mu multiplier ni mu yokkoo ëpp na yéen yaay yi jàpp leen ci bàyyi jàpp leen ci nañ jàpp ci sëy yi ñaax jigéen ñi ak góor ñi nga la waaye ku ci dugg ci sëy na ko def ci yàlla tax bu dee bànneex rek moo la ci dugal maa ngi lay seedal ne amul una bànneexu sëy matul una loolu kon la ca des mooy nga sàmm sa ngor sàmm sa diine jàppalante ci yàlla tax njaboot gi nañ leen bëgg nañ leen fonk nañ leen yërëm respecté leen ngiree ñoom it ñu bëgg ñu fonk ñu loolu mooy tax ba même bu ñu demoon ba nekk ay kilifa luñ leen sant daan ñu rus amma bu dee dañ leen a yar rek ci doole ak kattan heure bu ñu amee doole su ko defee ñoom it dellu ca la leen neexoon góorgóorlu leen ci seen way jur yi sunu borom yàlla kenn defalu ko ci jaamam yi lu mboole seen lu mel ne njëkk ba nga defal sa way jur waaye sunu borom yàlla jaamam yi kenn defu ci lu ko gën a naqari ñaawe say way jur góorgóorlu leen ci seen mbokk gi xale yi tey xamatuñu mbokk waaye yàlla subhanahu wa taala moo ne mbokk demal képp ku la dagg danaa ko dagg képp ku la jokk danaa ko jokk heure boo jëlee sa dàll jëm sa mbokk yëkkati sa téléphone di téléphone sa mbokk xamal ne yaa ngi jokk ak say boroom waaye heure boo xamee ni nii fuuy nga bàyyi say mbokk xamatoo leen xamal ne yaa ngi yàq sa diggante ak sa boroom xale yi tey xarit lañu xam mbokk xarit mënta ñàkk ci àdduna waaye xoolal kan ngay xaritool moytul utal ma ay xaritu intérêt wala ay xaritu bànneex kii sport rek a leen boole kay musique moo leen boole kee intérêt àdduna leen boole waaye yonent bi alayhi salaam dana woon almaru ala diini xalilihi falyanzur ahadukum man yuxaalil képp kuy dund ci kaw suuf yaa ngi nekk sa diiney xarit ku nekk ci yéen na xool kan lay xaritool mooy yow góor yow jigéen seetal say dëkkandoo nga gis ci koo xam ne diinam rafet na ngay jéem a am ak moom collaboration jéem a jokkoog moom ngiree ëllëg gi si biir yàlla boole leen ci àjjana ya nañ góorgóorlu mbokk ci dëkkandoo yi sunu borom yàlla jaamoo bokk na lañ koy jaamoo moo ñu rafetal ca la nga xamee ne mooy suñuy dëkkandoo nañ góorgóorlu ci ñi nga xam ne ñoo leen tane di miskin yi ak jirim yi waaye nañ góorgóorlu yi jéem a raxas suñuy xol ba bañ cee dencal jurit benn en bañ cee dencal jurit benn mero mbokk lii de da ngay gis ne ca yoon ya gën a tedd ci li lislaam woote la ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yal nañ ci saxal yal nañu ko nangul te it yal nañu ci rey ca dekkal ñu ci allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله قال ربنا سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من توفر شرطين لأي عبادة أو طاعة تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى الشرط الأول الإخلاص لله في هذا العمل والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ودين الإسلام كامل شامل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا وتن أيها الحبيب نفسك على الطاعة وألزمها العبادة فإن الدنيا أيام قلائل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ور- ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أي mbokk julit yi ñi ngi màggal sunu borom màggal gu amul app ñi ngi koy màggal màggal gu ànd ak lottu nam yeyoo jalla wa ala borom boobu nga xam ne nee na ay yéen julit ñi képp koo xam ne yaa ngi def lu baax góor nga wala jigéen danaa la dundal dund gu tey danaa la fayit loo xam ne moo gën la nga doon def ca loolu mbokk moom mooy aljanna xam leen ay yéen julit lépp lu ñu waxoon ci gannaaw ci jaamu yàlla yàlla du leen ko nangul lu dul ci ñaari charte lépp loo cay def na yàlla rekk tax jëf lu mu rafet rafet bu yàlla taxul du baax waaye loo ciy def dëppale ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looy defal yàlla mu sell te dëppawul ak sunna baaxul yonent bi nee noon ku sos sama diina ji dara daañ ko ko delloo diine lislaam mi ngi noonu dafa mat góor-góorlu leen ngeen sax ci te jëkkante jëm ci aljanna mbokk jurit mi ngi ci ab liggéey mi ngi ci ab course boo xam ne kañ la cay wàcc mooy heure boo xam ne teg na tànkam ci biir aljanna yàlla na yàlla tegal ñu sunu tànk biir aljanna loolu mbokk mi ngi noonu nañu góorgóorlu it xam ne sunu boroom diine ji def ñu ko defal benn diine mbokk julit ñëpp ay mbokk lañu julit ñi ay mbokk lañu ñoo bokk benn yàlla bokk kenn ku ñu fe lenn lu ñu yaakaar ca muy aljanna loolu tax dana ñaaw lool heure bu it amee ñu daal di xam teqale koog julit ñi loola ñu dul julit mën nañ leen ca reetaane bu ko defee ñu naan ah dëkk sangam day wari nañu ah mbooloo sangam day wari nañu mbokk loolu benn feebar la ci ñun yàlla na ko yàlla teggi ni ñu yàlla wërsëgale ñu bokk ko tisbaar yàlla wërsëgale ko ñu bokk ko aljuma yàlla yàlla wërsëgale ko ñu bokk ko iid mbokk iid boobu la muy wane mooy jullit ñi ñoo bokk ndey ak bàyyi jullit ñi benn lañu dañoo war a soppante na ngeen xam ne bisu màgg mi ngi nii sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam déggale na ci nee na yàlla dana wàcc ay malaakaam ñuy sargal jurit ñi ànd ak ñoom di ñaan yàlla yàlla di leen seddaloo na day ñii nga xam ne nii mooy sama jaam yi man day nekk naa koo xam ne ku leen baal la ku leen jéggal la ba ki nga xam ne nii moom mooy ibnu abbas mi ngi nettali nee na yonent bi alayhi salaam nee na bisu iid day malaaka yi ñu ngi koy tudde yowmul jaiza mooy bis bi nga xam ne ca la jullit ñi di jot seen kado ca la ñuy jot la nga xam ne mooy fay yàlla yàlla subhanahu wa taala boo lañu ci sunu borom bi ñuy wax aaya koor ba mu koy tëj mi ngi naan sama jaam yi day buñ ma lay laaj ida saalaka ibadi anni fa inni qarib man ku leen jegala ujibu da'wata daay ida da'an damay wuy aji woote heure bu may woo mbokk xam leen na loolu weeru koor taxul woon de loolu du nit yépp la ay yow sama mbokk bu jigéen e yow sama doom bu góor ngalla waay jokkoo leen ak seen boroom mboole mi soxlay àdduna bu ngeen am yëkkati leen seen loxo ngeen ñaan ko yàlla subhanahu wa taala te bu leen fàtte seen alaxira bokk na ci texee di ñaan yàlla àdduna ba sa àdduna baax nga fàtte sa alaxira bal ñaan ba gën a mat ci ñaan yi mooy la ñu yàlla jàngal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار mooy yàlla yàlla ñu may la gën ci àdduna may ñu la gën ci alaaxira te musal ñu ci la nga xamee ñu ne moom mooy sawara loolu moo tax ba mbokk julit yàlla moom nga xam ne moo ñu sant ñu ñaan ko moo ñu santoon ñu woor woor nañu moo ñu sant ñu dajaloo ci kanamam ñi ngi dajaloo nii ci kanamam yàlla moomu ñi ngi koy ñaan yàlla nañu jubal ila siraatil mustaqim yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy jaamu bañ koo bokkaale dara yàlla nañu yàlla boole ci ñey roy yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla bëggloo lépp lu ñu sant yàlla na yàlla bañloo ñu lépp loo xam ne daf ñu koo tere yàlla na yàlla baal ñu suñu bakkaar te yërëm ñu yàlla na yàlla yërëmal ñu képp ku ñu jiitu woon ci biir suuf yàlla yàlla yërëmal ñu képp koo xam ne njaboot la gu ñu njaboote bàyyi leen ñuy jaamu yàlla la nga xam ne mooy sunu gannaaw ñi ngi ñaanal yàlla réew mi ñu nekk yàlla na yàlla sotti fi naataange ñi ko jiite yàlla na yàlla jubal leen ila sirat al mustaqim ñaax leen ba ñu teg jaamu yàlla yi ca la nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala gërëm ñi ngi ñaanal ñépp ñoo xam ne nii ñi ngi bokk ak ñoom di julli ci jàkka ji yàlla na yàlla subhanahu subhanahu wa taala jéggal leen ca barkeel leen waaye rawatina ñi nga xam ne génn nañ seen xaalis ci weeru koor ci diiru weeru lëmm ñu ciy togg ndog yoo xam ne lu mu néew néew plus de deux cent personnes dana ci lekk yal na yàlla nangu leen loolu ñu ci dépensé woon yal na yàlla wuutal leen lu gën àdduna ak alaxira waaye soxna yu baax yi daan bàyyi seen i kër ñëw dajaloo di ko togg yi yal na yàlla barke leen barke seenu njaboot yal na yàlla dimbali lislaam ak ñooñu lislaam yal na yàlla may ñu mujj rafet defal ñu àjjana muy sunu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين